mu daje ci ngërëmul sëriñ bi itam ci daraje sëriñ Touba. di siyaar itam sama kilifa gi nga xam ne moom laa fi bokkal ne mu Cheikh Mahmoudan eh, di siyaar itam waa dayra ahlu xasida bi nga xam ne ñoo nekk eh, Italie di taxawal jataay bi di leen ndokkeel bu baax itam di leen sant bu baax itam ci boole gi ñu boole ci liggéey bi ndax ku ne xam na ne ñi ko man ci seen mbiir bari na ñi ko man itam ci dëkk bi bari na waaye bu ñu ci boolee bëggunoo noo jariñ rek la bëgg noo jariñ rek ak yéen nu aw yëw rek mooy sabab boobu te at yi yëpp ñu ngi koy jéem yàlla def na itam ñu ci toggoo coono yu bari waaye tey la ko yàlla dogal ngir nag njëkkanteeg waxtu wi rek dañ ne woon nañu jàngat ñaari waxtaan ak ñaari jataay yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi mujj amal ak dayira xasida bi nekk itali daaw jéeg wala daaw boog ca eh, mille 2019 sëñ bi defa def naa ak ñoom jataay bu am solo ren ji itam ci mille 2020 bi mu def ak ñoom jataay ñaari jataay yooyu dey man bi ma ko digloo dama cee santaat yàlla bu baax eh, waaye dama xalaat ci sama xel ni képp ku di murit bu ko digloo dootu maanaam dana bëgg a dugal boppam ci ñiy jàng xasida te dootu ca bëgg a génn mukk ndax sëriñ bi wax na ca wax yu kawe ci jàng xasida ak ñi nga xam ne ñoo koy jàng bala nu dugg itam ci tomb yi nga xam ne moo nekk ca biir jataay yu am solo solo yooyee ak la ca sëriñ bi wax Cheikh Mouhamadou Mountakha dañuy njëkk wax ne sëñ Mountakha ci moom murit yëpp war nañ koo ñaanal mu yàgg fi ndamul murit yi la bi yoon wi la itam te dolli na yaakaar yi murit yëpp bu ñu xoolee jamono yi weesu bi feebar bii tàmbalee ci réew mi ak ci àdduna bépp doxin wu rafet yu mu ci dox nga xam ne mbooleem sabab yi niñ ko war a jëfandikoo da caa jaar jaar la ci murit yëpp waaye itam eh, loolu yàqul dara ci li dox suñu digg ak suñu borom tabaaraka wa taala ñu war koo def ci ay jaamu yàlla loolu itam fex na ba ñaar yëpp ànd te dara wàññiku ci dara desul ginnaaw loolu nag liggéey bu rëy la rëy la boo xam ni sëñ mu taxaa defal na ko sëriñ bi defal na ko murit yi defal na ko jullit ñëpp ndax ci àdduna bi yaakaar naa moom rek mooy ki ci eh, am tawféex yi mën a boole ñaar yooyu yëpp ndax amoon na jamono joo xam ni mbooleem jaamu yàlla yëpp a taxaw moom nag fexe na ba jaamu yàlla gi taxawul te liñ digle itam ci fàggu ak fegu lépp def na ko ba mat sëkk jiitu ca ñëpp itam warmaal ko ba ñëpp xam ne ma nga ca di ko def ni ko ñëpp yi defee itam kon Cheikh Mouhamadou Mountakha dinaay wax ne sëñ Cheikh Ahmad ba sëriñ bu sëriñ bu mag bi sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu daraam neenut dama waxoon ne wasrif bi jaahil muntaqa lil umma igaathatan takfil adaa wal gumma buy doowu fu ma ko jàngee rek sama xel day dem ci cheikh Mouhamad Muntaqa ak doxinam mu rafet wi nga xam ne moom la dox ci jafe-jafe yii nu génn ndax sëñ bi da cee ñaan ci darajey Mouhamadul Muntaqa mu mag ma mu baax ma mu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yàlla def sayidna Mouhamad moom yi di al Muntaqa muy xettal ci mboolem xeet wi teg ca ne laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan aktharta li jadwaaka loolee nag suñu borom da ko rafaatale Cheikh mun Mountakha ci jamono jii nii ak ci jafe-jafe yii nii kon noo koy sant bu baax tey ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu gën ko yàggal gën ko dolli feex ndax yéeneem ku ne xam na ne yéeneem kawe na lool yal na yàlla àggale yéene yépp nag leen ànd koog moom ci daraja Serigne Touba. tomb yi nga xam ne nag moom la junj ci waxtaan yooyu yi ñu ko seetloo génnul daanaka juróomi tomb ba juróom benn ndax wax na ci tolluwaayu murit yi démb ak tey mooy li wax ne dañoo bi ñuy doog a gis sëriñ bi dañoo rët ginnaaw bi màndite jàpp leen ngir leerug sëriñ bi ak mbaaxam ak xéewalam yu bari ak barkeem bu rëy waaye màndite moomee nag ginnaaw nee na ginnaaw ba nee na eh, ba dañee nag ñu toll ci tolluwaay bii di war wuti xam-xam war a xam sëriñ bi loolu wax na ko loolu benn la ci tomb yi nga xam ne moom la jëkk a wax ginnaaw bi wax na ci jëmmi xasida yi ci boppam ak diggam ak sëriñ bi ak ni mu jëmmale sëriñ Tuubaa wax na itam ci xam-xam ni mu nekk jumtukaay boo xam ne ngir jariñu ci xasida yi faw nu fàggu ko faw nu wut ko faw nu nu nu nu dox ca itam loolu it wax na ci yooyu yëpp dinañ ci ñëw incha allah wax na itam ci adduna itam loo waxtaan wam njëkk a def 2019 wax na ci àdduna ak ni mu ñàkkee solo wax na ci lu bare bari moom la mujje sax nag wax na itam ci jëmmi sunu borom tabaaraka wa taala ak niñ ko war a wute ak itam eh, diggante wut àdduna te mooy fàggu lu lew niñ ko war a booleeg wut sunu borom tabaaraka wa taala loolu wax na ci itam ak yeneen yu sew siwaan ak ak diggante ñiy jàng xasida ak ahlu badrin alkiram ridwanullahi alayhim loolu daanaka ci gàttal mooy tomb yi nga xam ne sëriñ bi junj na ko ci biir waxtaan woowee ni mu ko waxee nag ci tomb bu njëkk bi ne murit yi sëriñ bi da leen a yéem ba tax na bi ñu koy doog a xam mooy bi sëñ bi feeñee rek ñépp dañoo nekk ci rët mooy jaaxle ak jaxasoo ndax sëñ Tuubaa moom noonu ko sëñ Cheikh Mouhamadul Muntaqa waxe moom xar baaxug suñu borom la tabaraka wa taala ujubatan li kullil ni maana day xar baaxug sunu borom koo xam ni suñu borom mënu ko baaxee gis nañ sëñ bay jaxate koo xam ni day laaj suñu borom moo yàlla fii kii foo ko jëlee loolu day tekki loolu sëñ Muntaxa wax nga xam ne murid dañoo rët ñoo jaaxle ci moom ndax mësuñoo xam jamono ci boobu mësula xam ku mel ne Serigne Touba. loolu yi nag ak leeram gu bari akuk mbaaxam ak jikkoom yu kawe ak akuk cellteem ak barkeem bu bari moo def màndite ci biir mu di ba mel na ñoom sëriñ bi eh, da leen a doy sëkk ba boolewuñ kook leneen xamuñu leneen mel na sax mu tàggal leen ak seenug sago loolu mooy marxalab ñaareel bi nga xam ne moom si moom la sëñ bi junju waaye nee na boobu itam la ca topp mooy dem ba nag àndaat ak seen sago nag mooy saxawa sukkur moom moom lañ koy wax te loolu lu ñu xam ci ci ci doxinu tasawuf la waaye nee na bi saxawa am na saxawa nag nee na jamono jii nu tollu danoo war a yewwu eh, delluwaat ci ak nite te jéem a jëfandikoo xam-xam nag ngir sëriñ bi li nga xam ne moom la moom moom moom la fi bàyyi te sëñ sëñ bi wax na kàddu gu am solo dafa wax ne sëriñ bi dañ ko war a jéem a xam ndax jëmmi sëñ tubaa day jëmmal xam-xam maana xam-xam maanaam tubaa da koo jëmmal maanaam jëmmi xam sëñ tubaa mooy mooy mooy xam-xam dëgg-dëgg xam-xam itam dëgg-dëgg moo la yóbbu ci xam sëriñ bi loolu yi wax na ko wax na ne sëriñ tubaa diirub ñu gis ko ba niñ ko noppee gisee jenn yitte la ma sa am te mooy boroomam subhaanahu wa taala te doxam bépp itam ak léppam yitam mi ngi ci biir xasida yi loolu suñ mun Muntaxa wax na ko kon Sëriñ Muntaxa jox na nañu yoon wu leer naññi yoon waxam ni buñ ci jaaree duñu eh, réer mukk te mooy jamono ji wax na doxin wi doxin wi mooy nu delluwaat ci yeewu xam li nu am xam sëriñ bi jéem a fàggu xam-xam te jéem li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi ñu jàngalewaat ko ba ñëpp xam ko ndax wax na buñ seetloo ci biir waxtaan wi wax na ci ne sëriñ bi bu weesoo diggam ak boromam subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom kese moo doon yitteem ndax nee na biñ ko gisee ba niñ ko noppee gisee diggam ak boromam rekk moo doon yitteem waaye wax na ne bu loolu weesoo gindi nit ñi moo ci topp gindi nit ñi nag loolu moo indi ci li ma déggee ñu war a fàggu xam-xam ndax li sëriñ bi eh, bind ak lim fi bàyyi bun ko xamul duñ ko mën a jox ñeneen te adduna sépp ñun lay xaar adduna sépp mën ne ñoom ñun lañuy ñuy xaar ñu jox leen lii fi sëriñ bi bàyyi te mooy xéewalug adduna ak alaxira tuba ko waxee nóorul daaree di man turi xaside xaside yi foo ko fekk da gis da ciy boole adduna ak alaxira jagug adduna ak jagu alaxira moom la boole loolu yi nag adduna sépp moom la xaar lislaam joo xam ni dafa dellu ca nag ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon dara rëxu ca ndax Sëñ Tuubaa ku ne xam ne doon yeesal diine ndax diine day bëgg day bëgg a yàgg mat na junni at ak ñeenti téeméer am na yu ci dugg te bokku ci woon am na yu ci génne woon te ci sëñ bi nag bi mu ñëwee da koo dellowaat ca na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa bàyyi woon nga xam ne mboolem li ci dugg te bokk ci mu génne ko mboolem luñ ca génne woon tam mbokkoon ci mu dugalaat ko ci diine jooji da nga xam ne moom la sëriñ bi jàngale adduna sépp nga koy xaar ci murit yi te ngir murit yi mën koo joxe faw xam-xam boobu mënta ñàkk loolu yi la sëñ Muntaxa junj foofu moo tax sëñ Muntaxa ay waxam moom ma njëkka leeral ne man bokkuma ci ñi ko mën a dégg maanaam kenn ku ne fa sa dégg toll rek fa sa dégg toll rek foofu nga cee waxee ndax léeg-léeg day wax ne yit te jëpp na nekk sëriñ bi léeg-léeg mu wax itam ne sëriñ bi ci boppam mooy xam-xam nañ ko jéem a xam ndax buñ ko xamee rek danañu xam sunu borom tabaraka wa taala danañu xam itam sunu diine loolu wax na ko wax na itam sëriñ bi lim nu bàyyee mooy liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala te liggéey bi itam mooy tasaare diineem ji ak jàngale ko ci anam gam gën a wére te gën a dëppoog na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg woon ak nam ko bàyyi woon loolu kon ay poñ la yoo xam ne sëriñ bi taxaw na ci jëmmi xaside yi itam bu ñu seetloo sëriñ bi taxaw na ci bu baax baax wax na ne xaside yi ñooy sëriñ bi wax na ne xaside yi ñooy sëriñ loolu nag lu am solo la lu yomb dégg la itam wala fi yàgg nañu wax ne mag fu mu nekkul ay waxama ko fay nekkal te sëriñ tubaa li ci gën a yéeme mooy doxam bépp daa nekk ci biir xaside yi fi ne tey booy nettali dunduk sëriñ bi man ngaa bañ a génn mbindam ndax fu mu toll bind na ko mën nañ ne lépp lu mu defit daanaka sax bind na ko bu dee ci yoonu géej gi gis nga defal na ko sax téere boo xam ne fépp fu mu jaar ak lu mu fa def ye ëpp solo bokk tënk na ko bind na ko am na ci yoo xam ne génn na nekk ci gisaw gisawu sa ko laatu boobu am na yoo xam ne bind la yoo xam ne génnagut waaye li ci ëpp bind na ko kon jëmmi mbindum sëriñ Tuubaa mooy jëmmal dunduk sëriñ bi ci boppam foofu yaakaar naa des na fi mën a dégg li sëriñ bi wax ne xasiida yi ñooy sëriñ bi mbooleem itam jariñu ci sëriñ bi ku ne xam na ne loolu dinaa ci gën a ñëw incha allah te mooy sëriñ bi yitteem moo doon dimbali doomu aadama yi ci jubbanti leen ak tërbiye leen loolu itam ku ne xam ne def na ko ci biir xasida yi ba boo koy jàng la sëriñ bi daa def ci ñam daan tërbiya xasida yi di ko def ci ñi nga xam ne ñoom la ñoo ñoo ñoo ñoo koy jàng mooy li mooy junj li wax ne eh, faaqat suyuqa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuqa tarqiya waaw xasidati faaqat suyuuq tarbiya wala kitaabati xasidat faqat suyuuq tarbiya wa kulla xeyrin wa suyuuq tarqiya ndax sëriñub tarbiya ak sëriñub tarqiya jubbanti nit rek la ñuy def ak dugal ci moom mbooleem jikko yu baax yi génn ci moom mbooleem jikko yu bon yi xasida itam loolu lay def ndax dikr la yàlla la koo xam ne ku kawe jaar ci sëriñ bi loolu moo tax ki koy jàng itam da koy jubbanti di defar xolam di ca génne mbooleem sikk di ca dugal mbooleem eh, jikko yu baax yi loolu yi dégg nañ ko ci am na euh, lu am solo loo xam ne sëñ bi junj ne ko ci biir xasida dafa wax ne xasida yi boo koy jàng day soppi sa jëf yëpp jëme leen ci ngërëmul yàlla loolu sëñ Muntaxa wax na ko te muy lu am solo ndax jëmmi xasida yi day may ngërëmul yàlla loolu dinaa ci ñëw insha allahu taala wax na itam ne xasida yi ñooy ñooy yuuruk mooy ñooy yuquk yoon yoon wi ñooy yuquk murid yi itam loolu wax na ko loolu mas na ko dégg ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne adduaa u muxul ibaada maanaam ñaan mooy yuuru jaamu yàlla te xasida yi génnul ñaan ndax dikr ñaan la itam xasida yi tudd yàlla la ak tagg ko ak julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan ak jéggulu suñu borom loolu rek mooy xasida kon génnul ak jaamu yàlla génnul itam eh, ñaan googi nga xam ne moom la yonent bi wax ne mooy mooy mooy yuurug jaamu yàlla eh, eh, sëñ bi itam nuróole na ñi nga xam ne ñooy jàng xasida te xam ko wax na nag xamkati xasida yi ñi nga xam ne ñoo ko xam di ko jàng di ko yittewoo wax na ne ñooñu bu doon jihaad la ñoo nekk ca bopp ba ñoo nekk ca njëlbeen ga ñooy taliyaatul dina waaw loolu yi wax na ko loolu nag ngir ngo ngir ñu xam sëriñ bi li mu wax ci xasida yi faw ñu xam jëmmi dayob xasida yi xasida yi du lu woyof xasida yi Sëriñ du lu woyof dana wax ne Sëriñ Tuubaa yàlla du ko defal ci mbindam barke boo xam ni amul ci meneen bind mu may alquran ak xadis yonte bi sallallahu alayhi wa ni mu ko waxee wax na ne sëñ bi wax na la wax na ne anaa la nii fil xatti maa lam yëkku ni wala yakunu xaaliqi li mumkini yàlla may na ko ci mbind loo xam ne mosu koo may mbindeef te dootu ko may mbindeef itam ndax mbindam xasida Sëñ Tuubaa yëpp dañ koo génnee dañ koo génnee ci biir alquranul karim loolu Sëñ Tuubaa wax maanaam lépp lépp nañ ne cosaanam alquran la moo li wax ne xaliqun bi an yusna alayhi bi dikrihi fa amdaaxuhu min ay mawlaahu tuxraju lépp ci alxuraanul karim la ko balloo gis nañ moo tax ñu gis xasida yu bare bare am na diwaan sax boo xam ne quraaniya lañ koy wax nga xam ne mboolem xasida yëpp dañ ko tënke ay aaya alxuraan maanaam lu bari ci aaya alxuraan am na ñu ñuy dem sax bay wax ne mboolem alxuraan yëpp sëñ bi def na ko waaye bu dul lépp itam li ëpp ci alxuraan day aaya la aaya yu ci bare bari li ëpp ci alxuraan lu bare bari ci alxuraan ci ay aaya alxuraan sëñ bi tënke na ko ay xasida loolu ku xam quraaniya ndax quraaniya xëy na bii bii bii ñu xam ni ba mooy li feeñ ci mbindum sëñ bi waaye la ca fii ñu itam ak la nga xam ne suullu na ko ndax sëñ Basiru daana wax ne ginnaawam lañ gis diwaan yi fi ne diwaan yi ginnaawam lañ ko gis ndax lépp lu mu daa bind rek di jëpp da ko daa denc def ko ci ay bërëb teg ko ci biir eh, ay ay bërëbam waaye lépp génnutoon ginnaawam nag la lépp la lu bari ci diwaan yi génn loolu kon ci la xame ne alquranul karim mooy cosaanu xasida lu sell la lu wér la lu leer la ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ne léppam léppi xasida da ko tuxale ca lawxul mahfuus wax na ne ëlliwoom buy bind day janloog lawxul mahfuus di ca tuxale waajaha lawxi wa qilaami lawxa wa qalama alladi hada wa awxa maanaam mbindam di wax ne kitaabati min lawxi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabihun yaqilu man léppi xasida yi ak léppi mbindam da koo tuxale ca allawhul mahfuz moo tax muy wax ju sell ju kawe ju ànd ak leer joo xam ni lépp léppi leer la itam ndax wax na ne wajal tawaalifi tawaalifi ya anwaaran tanuur leer la jëmmi leer la moom moom xasida yi man xasida yi dinaa ne léeg loolu xamut ànd naa ci ak ñu bari waaye damay wax ne jëmmi xasida gii nga tiim di ko jàng nii jëmmi leer la goo xam ni gii nga tiim day firi day jëmm jooje ndax ku ne lépp loo xam ne lu nit wax la rek fi ne yàlla deful na ko ruux ilayhi yasaadul kalimu loolu la suñu borom wax ak tayibu maanaam baat yi ay jëmm la moo tax jëmmi waxi sëriñ bi lépp ay jëmmi la yoo xam ne mooy ne wax anwaaran tanuur wajal tawalifiya anwaaran tanuur saatiatan bi xurmati nuuril munir Sëriñ Tuubaa yàllaa ko defal mu doon eh, eh, tànquwaayu jaam ñi maanaam jaam ñépp ci moom lañuy mooy géej gi nga xam ne ci moom lañuy eh, nàmpe ci la ñuy ci la ñuy jële mboolem li ñuy dunde maanaam xolam bu sell ba li mu wax ne xolam bu sell ba sunu borom da cee def bëbbug leer goo xam ni lii muy bind ci bëbb googee lay jóge li ma ko waxee lu baree bare bari ku ne xam na ne leerug suñ borom lépp leerug suñ borom suñ borom da koy sotti ci ruuxug yonente bi sallallahu alayhi waaye itam Sëriñ Tuba wax na ne mboolem ñiy jariñu ci yonente bi sallallahu alayhi wa lépp lañ cee jariñoo ci moom lay jaar wa bi turaqi xisbaka alxufaada wallahu raqa bi ma li qaada aqtaaba wa bi turaqi al ci bërëb yu bare bare yoo xam ne wax ne mboolem ñiy jariñu ci suñu borom moo xam borom xam-xam yi la wala nit yàlla yi lañ ciy jariñoo lépp ci moom lay jaar kon xolam mooy balluwaay ba mooy teen ba nga xam ne ci la ñëpp naane mooy li mu wax ne lam taktubil aqlaamu bil midaadi fi gayri faydillaahi dil amdaadi maanaam bëbbug suñu borom ko nga xam ne mooy bëbb ci xolam wajaal fuyóoda këlkël yi muniira quluuba xisbika wa astia nuura nga xam ne nit yàlla yëpp ci xolam boobee la eh, ñuy la ñuy la ñuy jariñoo ca la ñuy tànqe ca lañuy ñuy leerloo ca la ñuy jëlee mboolem li ñuy am ci suñu borom tabaaraka wa taala xol boobee nag la wax ne li xalima yi bind ci xol boobe lay bàyyi ko xol ba mooy teenub leerug suñu borom tabaaraka wa taala wala mooy géejug leerug sunu borom tabaaraka wa taala moo tax mu ne lam taktubil aqlaamu bil midaabi bil midaadi fi gayri faydillaahi dil amdaadi moo tax leer googu yi nekk ci xasida yi nag moo tax iblis ragal ko suñ bi wax na ba tàyyi ne nafat qasaidi laina wal xiyal mugniyatan an il xisaabi wal kiyal wax na ne jëmmi iblisul lain xasida yi da koy dàq wax na ne kitaabati tubashiru l musafaa wa inda iblisa tafuuqu midfaa moo raw kënu ci iblis moom xasida yi ni muy bégale rasulullahi moom xasida yi sala moom xasida yi sallallahu alayhi fu ñu koy jànge rek day bég tu basirul musafa waaye nee na moo raw kënu ci iblis tey xasida ci moom kon dañ ciy dégg lu rëy la ndax léppam yàlla da koo nangu wa min eh, qad baana anna allaha lam yalidi wa lam yulad wa min ni taqabbal al qalam maanaam eh, wa kulli qabila

xasida loolu moo tax mu diis lool te rëy ba sëñ bi wax ci ne wax ne lu dul alxuraan te loolu sax da wax ne yonente bi sallallahu alayhi moo ko bind mu dib ngi ci majmaa bi si ab lat mooloon wax ne yonente bi xamal na ko ne mboolem li nga bind eh, maanaam moo kawe alxuraan lu dul alxuraan boog lu dul alxuraan ak xadis mi ngoog eh, noonu moom la suñu borom gën a sopp itam ci lu dul alxuraan ak xadis kon jëmmi xasida itam jot na wala dana baax dana jaadu nu xam la maanaam xasida yi mooy lan xasida buñ ko waxee wax naa ne mbooleem xeeti xam-xam yépp mi ngi ci xasida yi ay xeet la am na yoo xam ne xasida yi xam-xam la am yoo xam ne xasida yi tudd yàlla la Sëñ Tuubaa wax na ne farra li nazmi wa li nasri kullama wala kulluma farra ilayhi al ulama ulama wal awliya mboolem li borom xam-xam yi daw wuti dañoo daw loolee moom daa daw wuti sama mbind mboolem li awliyaaw yi awliyaaw daw wuti loolee moom daa daw wuti sama mbind farra li nadmi wali natri kullu ma farra ilayhi al ulama kon xasida yi daa boole ñaar mooy eh, ab làmp la ndax xam-xam leer la ni ko xamee dinaa koy misaal ci wax ne kiy jàng xasida wërta neenal eh, genn wet ndax xasida yi da ci am wet goo xam ne wetuk xam-xam la waaye am ci wet goo xam nag mooy wetuk tudd yàlla yi nga xam ne mooy doxub xol nga xam ne maqaamaat yeeg yéeg bi ci la nekk wa fi tawalifil maqaamaat ijmaa ñaar yooyu waroo cee warasu cee neenal benn waaw ngërëmam itam da cee nekk ngërëmul suñu borom tabaaraka taala dafa nekk ci biir xasida ilaa xattiya albaaqi yaquudu ridaahu ilaa xattiya albaaqi yaquudu ridaahu hazamtu l ida turran bi dikri la dal kasmi kon faw nu ràññeel kon ne xasida ñaari wet la am na wetu xam-xam gi am na yoo xam ne xasida xam-xam kese la ndax may yi muy wax day wax ne yàlla defal na ko ko ci kitaabati wala xatti wala tawaalif yi ci wax te loolu nam ko waxee xasida yi nga xam ne xasida yi tudd yàlla la ak xasida salaatu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jaalibatul maraxib ak nuuru daareeni ak mafatixul bisri noonu it la waxee ne yabussu uluma diini xatti mujaddidan nga xam day jëfandikoo baat yooyu ne mbindam day day day yeesal diine day jàngale xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ñooy dundal diine wax na ne kitaabati tubayinul furuda wa sunan alladi kafa tamrida nga xam ne nee na mbindam day leeral farata yi leeral sunna yi am na fu wax ne yabustu fi sunnani fi fi sunnatihi xattil funuun maanaam mbindam day leeral fànni sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rabbi qad hadatni wa sufiyat wa xatti yuril garraa dal xussi wa nayi mbindam day leeral sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam na ne mbindam day dundal lislaam bi xatti alladi yaxya xayru islaami kon faw xam ne itam mbindum Sëñ Tuubaa ñaari wet la taxawee nu wet goo xam ni dañ ciy xame diine te loolu bari na loolu lu mu ci bind mawaahibul quddus fi nadmi nasri cheikhina sanusi wala ci tawxid la ko bind lu mel ne faydul ganiyil mugni fi nadmi ma an suluki yugni ak jasbatu sigaar an laibin li xidmatil muxtaar yooyu xasida la waaye xasida yi xam-xam la bu sëñ bi bind ci wàllu tawxid bu dee ci wàllu fiq bari na ci lu mu ci bind al jawharu nafis eh, ak lu mel ne nahjul xaqiqa ak tasawudu sigaar ak tasawudu shubaan ak yéen deme bu dee ci tasawuf itam bari na xasida yum ca def lu mel ne masalikul jinaan ak mu layyinu sudur ak mu nawiru sudur ak maxaaliqu an niiraan ak yeneen ak yeneen dénkaane itam bari na lool majmuwa bi sieb laat mooloon te dajale woon ko ci jamonoom boobi moom lañu tuddee al majmua as-sughra am na beneen majmua itam boo xam ne dañ caa boole diiwaanu circuit jawahir dénkaan ya ci ne yëpp ñu dajale ko ci mu gën a rëy te sunu mbokk yi nekk Italie ñoo ko mooloon yaakaar naa ci jamono Sëriñ Saaliw ci ndigalam itam ak lu mel ne silkul jawahir masalan ci moom ak diiwaanam ba eh, loolu yi yëpp mbindi sëñ bi la yoo xam ne ci wàllu xam-xam ak jubbanti doomu aadama ca ca la jëm ci teggi ni murid tam sëñ bi bind na ci lu mel ne nax ju xadaayal xaaj ba ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi bind na ci def na a xadisan boo xam ne mi nga ko tuddee nafaisu durar fi kalimaati xayri xay xayril basar kon xaside xam-xam yooyu mun la ñàkk ndax li sëñ bi wax ne moo nekk ci mbindam eh, ak di wax xatti ak ak ak tawaalif ak kitaabat yi noonu it la waxee ci xam-xam yi wax ne mbindam itam day jàngale diine di jàngale farata di jàngale sunna yi di leeral sunna si yonente bi di leeral diine ji gën a wér mu di ko leeral ci anam gam gën a leere nekk noonu ci wet gi itam xasida xam-xam am na xasiday xam-xam waaye am na xasiday tudd yàlla niñ ko xamee ndax wax na ne kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat maanaam mbindam tudd yàlla la ak sant sun borom tabaraka wa taala am na feneen fu wax ne raamat qasaidi salaata wassalaam li dil mazaaya di jawaami al kalaam wax ne jëmmi mbindam ci boppam lenn mooy yitte mooy julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam xasidaam yi seen yitte mooy julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy sàkk waxtu ne kon xasida yi julli ci yonte bi moo ko feese moo tax ci wàllu zikr itam ak julli ci yonte bi lool it def na ci xasida yu baree baree bari mën nañ cee xasida yi tagg tagg yonte bi itam am amdaax ak mawahibun naafi ak jazbul qulub ak jaalibatul maziyaat ak yeneen ak yeneen bu dee xasida yi nga xam ne ci la julli ci yonent bi moom it bari na lool mel ne muqaddamatul xidma am na bu ndaw ak bu mag ak nooru daarayni ak jaalibatul maraaxib ak mafatixul bisri ak eh, ak durru samin ak fatxul gafaar ak yeneen ak yeneen kon foofu gàttal gi mooy murit bi wërta neenal genn wet ci mbindum sëriñ bi lépp mbindum sëriñ bi lañu la ñu war a jël maanaam ngir xam nga li Cheikh Mouhamadou taa wax ne xasida yi ñooy ñooy sëriñ bi maanaam ñooy jëmmal sëriñ bi ngir jëmm jooji mën a ma ma nga mën a téye ci léppam faw nga jël wet yëpp danay wax ne bu ma ko doon misaal murit bu fekkoon nañ ko dama ko doon misaal ceeb oto oto faw mu am gaasuwaal gaasuwaal boo xam ne mooy tax mu mën a dox gaasuwaal boobee nag mooy xasida yi nga xam ne moom la ñuy tudde yàlla xasida yi ñuy jàng di ko tudde yàlla murit bu ne war na ci amub dog bu mu saxal ndax Sëñ Tuubaa di wax ne waalam bi anna dikra quutul qalbi loolu mooy dundub xol mooy gasoil bi nga xam ne mooy mën a dox mooy tax nga mën a dox te ku ne xam ne ni ñu koy waxe ni ma koy wax lu bare bari yoon wi boo ci dox ci dox yi sëriñ bi ci ngay dox loolu ci yoon yëpp la nit yàlla yëpp nangu nañu wax ne yoon woo ne sëriñ boo àndal ci dox yi nam ngay ngay dox moo lay xëcc te sëriñ Tuubaa dox nam te doxin woo xam ne mooy wi gën a gaaw ci ci ci li yàlla sàkk loolu yi nag boo ci dox te adduna si dañuy wax ne kawnu bi lépp ak lëndam la leerug suñ borom rek moo ci xoy noonu la ko ibnu ataillahi sikandari waxe woon ne al al kawnu kulluhu zulmatun léegi nag kuy dox ci aw yoon yoon wa lëndëm wala ci bërëb bërëb ba lëndëm war nga amul leer goo xam ni moom lay niital yoon wi leer googee nag mooy xaside xam-xam yi ab oto du gaas war rek moo koy yóbbu rawatina ci bërëb yu lëndëm ay làmp mënu ca ñàkk làmp yi nag mooy xaside xam-xam yi mooy tax nga nga tegu ci yoon wi te doo ko wàcc mukk ndax boo dee dox ci lëndëm yoroo làmp te dox vitesse wu gaaw mën nga jàdd yoon wi te doo ko yëg lii tax nag doo jàdd yoon wi mooy nga yor ay làmp yu leer di xam fi ngay jaar bañ dugg ci pax bañ dugg ci dal ci garab bañ a dal ci ëkk waaye nag ku ne xam na ne oto itam faw bu amee gaz waa làmp ya leer muy dawit faw mu am ko koo xam ne moo koy bijjanti muy ab chauffeur loolu mooy ab sëriñ ab sëriñ it mun ca ñàkk boo xam ni moo la naa defal ak bul def di la jubbanti di la jëmale mbir waxtu wu ne ci la gën a baax ba keroog ndax saw doxin mën a mën a ñoŋ kon yooyu mënta ñàkk kon gàttal gi mooy xasida yooyu yi nga xam ne sëriñ bi euh, jëmale na ca mboole murid yi wax lim ci wax ndax wax na ci biir waxtaan bi ne yéen am ngeen taw tawfeex ci bi leen suñu borom xiiree ci xasida yi xasida yooyu kon murit yëpp war nañoo xam nan la ñuy jëflanteek moom ndax xasida itam am na yoon lépp loo gis rek am na yoon le maanaam loo xam da nga cey doxee sa sa sa sago ak sa xelum bopp amul ak murit rawatina murit kenn du ci doxee sa xelum bopp murit moom lépp sëriñ bee ko jàngale leeral ko ci anam gu leer na ñu lu ci keneen di xalaat amul kon waras naa xam nan la ñuy jëflanteek moom ni ñu jëflanteek moom nag gàttal gi mooy la cay xasida xam-xam ñu di ko jàng ngir mën a xam yoon wi mu mën a nekk ab làmp ci sunu kanam dinu niital fi fi fi fi nu jëm hërëba min shi'riya iblisul marid wa bi qasaidiya yëhtadil murid loolu la sëñ Tuubaa wax kon njub goo gi nga xam ne moom la sëñ bi wax ne maanaam mun la ñàkk te mi ngi ci xasida loolu ngir nu am ko faw nu xam nu xam lu xasida yi nga xam ne moom la sëriñ bi def muy xasida xam-xam yooyu nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy jàngale xam-xam waaye xasida yi ci desit muy xasida tudd yàlla yi nga xam ne moom la ñuy jàng waxtu wu ne moo xam xasida salaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la tagg yonente bi wala jéggulu ko wala jéggulu suñu borom wala ñu demee xasida yooyu itam am na wu yoon Sëñ Tuubaa wax na ne dara ëppul solo tudd yàlla subhaanahu wa taala amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma muridu yuksiru maanaam lu ëpp solo tudd yàlla te tudd yàlla mooy jàng xasida jàng xasida tudd yàlla ndax suñu borom ci alxuraan day wax ne na bari udkurullaha dikran kathiran wa dakarullaha kathiran wa dakarallaha kathiran wa dakirina allaha kathiran kathiran rek lay wax waxtu ne na bari loolu mooy indi bési xasida yi ñuy def di jagleeg Sëñ tubaa goo xam ni lu dara ëpp ko solo ndax Sëñ Tuubaa bokk na ñaanoon na bërëb yoo xam ni xam nga waxoon na ne sharaatu baaniyan binaa ad dikri maanaam yitteem mooy tabax tabaxub tudd yàlla boo xam da da ko bëgg a yëkkati tabax boobee da nga yëkkati ku ne wax dëgg yàlla ndax murid yi ñi ngi jàng xasida waxtu ne di dajaloo ci ay bër bis yoo xam ne jàng xasida kese lañu fay def di tudd yàlla ba waxtu ba waxtu wa del si waaye nag ku ne xam na ne lu ne am nay teggin rawatina ak murit murit moom Sëñ Tuubaa daa wax ne maanaam ruuxuk ak murit fi ne mooy ay teggin teggin lu mu génn rek loola bu doo bu dee ak murit it murit ga de maanaam jëmm la ju dee joo xam ne amatug rox waaw Sëñ Tuubaa nag jàngale na teggin yi nga xam ne moom la ñu tudde yàlla wax na ne wa udda min aadaabi dikri daakiri juluusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbila alqiblati daata rabbuci aw mutawarrikan kaman solla faci tayiba raaihatin id la taxlu majalisu dikri ida ma tajlu an ilmalaikati bi istimaaci wa mumini l jinni ala al ijmaaci wa udda bi tasfiya adkaarihi min kulli wax na ne ki nga xam ne mooy tudd yàlla maanaam kiy jàng xasida rek war naa toog ci bërëb bu laab maanaam bërëb bi ngay toog na nekk bërëb boo xam ne mën nga faa jullee na nga jublu penku itam mel ne kuy julli mooy def ci yitte xasida tudd yàlla goo xam ni suñu borom da wax ne anaa ana jëliisu man ni booy tudd yàlla yaa ngi jataayog suñu borom suñu borom nag boo jataayoog moom waroo caa boole leneen moo tax di jàng xasida di ko booleeg yeneen i wax ak di nga xewlu fii léeg nga naan kafe fee it yaakaar naa ni sax du ay teggin itam war nga ko boole xet gu neex tayyiba raa'ihatin ndax suñ tubaab da wax ne jataay yi nga xam ne ci la ñuy jànge xasida rek muy jataay tudd yàlla yooyu majalisu dikri malayka yi dañ fay ñëw te malayka yi xeet gu neex googi dafa bokk ci li ñuy bëgg ci jataay bi waaw mi ngoog ak jinne yi itam jinne yi itam ñi ci gëm yàlla dañuy ñëw di fekk jataay yooyu moo tax sëñ bi am na am na fu ko tënk foo xam dafa wax ñaari teggin yoo xam ne mënta ñàkk nga xam ne képp ku jàng xasida war nga koo boole ci sa ci sab dox mooy waxris alal ixlaasi wal ixfaa'i anil wara tum dax la dal jisaayi maanaam na nga na nga xéer ci ñaar mooy na sell te li li nga ciy def it bul yittewoo nit ñi xam ko wutal ab dog bu am solo ci xasida yi nga di ko jàng te yàlla rek a tax bul yittewoo nit ñi xam li ngay def ak li ngay jàng yéene ji itam na sell dinaay wax ne bu ma ko doon misaal ci aw ñam xasida yi aw ñam la ndax mooy lekkug ruux mooy dundug wax waalam bi na anna dikra quutul bi maanaam mooy mooy dundug ruux ruux xasi maanaam tudd yàlla yi rek lay dunde li nga xam ne suñ jëmm yi mënta ñàkk xéewal yi ñuy xéewloo noonu la ruux mënta maanaam maanaam mënta ñàkk moom it xasida yi ñuy jàng waaye ku ne xam na ne booy booy booy booy xéewlu boo bëggee xéewlu faw nga raxasee loxo mënut ci ñàkk ndax bu dul loolu dina am microbe yoo xam ne ci sa day takk sa loxo te boo ko lekkaalee mu jural la wéradi xasida it noonu la xasida du lore waaye boo ko defut ci laab loolu yi lay dal ci ci xéewal ga rek mën na laa dal mën naa am yu ca tàbb yoo xam ni ay sikk la yoo xam ni mën na mën na laa mën na laa gàllankoor wala mu yàqal la wala mu bañ laa nga bañ caa am yañ ca digge wala li ni demee moo tax kon xasida ki koy jàng war naa ànd ko laab te def ci yitte ju kawe kawe kii kii kii lekk faw mu tudd yàlla njëkk loolu mënta ñàkk ndax Sëñ Tuubaa dara wax ne wax na ca silkul jawaahir ne kii xewlu bu tuddul yàlla seytaane day bokk ak moom xewal gi waaye lool it li muy tollool ci jàng xasida nga xam ne mooy dundub mooy mooy dundub xol mooy yéene yéene mun ci ñàkk ndax innama al amalu binniyaati loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax wa innama li kulli mrin ma nawa ku ne xam na ne am na ñoo xam ni sama classe gi dañuy dégg ñu ne xasida sàngam boo koy jàng rek doo ñàkk dépense ñu jël ko maanaam yow yaa ngi jàng xasida gi waaye yàlla taxul jëmmi sëriñ bi taxul am dépense moo moom ngay moom ngay lijjanti yow maanaam yow li ngay jaamu mooy dépense bi loolu mën nga ko caa am de xëy na mën nga ko sax bañ a am ndax yéene ji moo moo sellul moo tax yéene ji lu ci am solo la kii jàng xasida war naa fexe ba yéeneem sell mooy muy jàng te yàlla kese kese kese kese tax bañ caa boole leneen léegi nag xasida yi moom la ci sëñ bi la ci borom def dëxañ ko ca loolee moom booy jàng rek faw muy ñëw moom booy jàng te yàlla rek tax faw muy ñëw moo tax bul yittewoo yeneen yi liñ ci wax ak dana maye li ak boo koy def da nga xam nangama yooyu yëpp bu mu la yitteel yow jàngal te yàlla rek tax def ko ak tudd yàlla ak jaamu yàlla sa digg ak sa borom te liggéeyale ko sëriñ bi mën nga caa def mën nga ko def sa addiyee sëriñ Tuubaa ak la mën nga ko joxe addiyee waaye bul ci bul ci fas mukk mbirum àdduna ndax sëriñ Tuubaa danaa ci ñëw ci bu ko waxtu yu mayee Cheikh mun taa wax na poñ ci poñ bu am solo ci wàllu adduna buñ ci accès dinaa leeral ne sëriñ Tuubaa moom du woon yitteem waaw ba tey xéewlu àdduna gi yaram wi xéewal yi mu soxla bokk na ci li mënta ñàkk mooy jël ca lu yam lu tollook sa sa sa sa sa maanaam am na boo jëlee lu ëpp ci ñam wi dangay daal di fër te fër da la jural yeneen feebar xasida itam noonu la mooy dundub xol mooy lekk gën a neex ci ruux waaye nag am na quantité boo xam ni moom da ko caa war a da nga caa war a yem bu ko ëppee rek maanaam mën na laa jur yeneen jeexit yoo xam ni eh, maanaam sa digg nit ñi ñoo ñoo yàq ndax xasida du yàq dara moom sab dox mën naa gën a kii waaye mën na laa yóbbu foo xam ni dootoo mënante jëflante ak nit ñi masalan moo tax jël ci tolluwaay lu tollook sa sab dox lu am solo la ba tey itam kenn ku ne daa am ñam woo xam ne moom nga gën a jublu bu dee ci xéewali adduna yi kenn ku ne am na ñoom woo gën a am na ñoo xam ni masalan ceeb mii ni mu neex ci ñi am na ñoo xam ni bu bu leen maanaam mënuñu ko maanaam neexul ci ñoom kenn ku ne daa am lu gën a neex ci yow moo tax xasida tam noonu la demee mooy dundug ruux waaye bari na bariwaay boo xam da ngay seet la ci gën a dëppook sa bëgg gën a dëppook sa ruux wala nga gën caa yigee sëriñ bi rek nga jël loola te yem ca nag ndax goo ci jël rek te sellal ko te yàlla rek a tax insha allahu taala li nga ci sàkko lépp da ko ci am kon teggin yi mooy wax ni kon mun ci ñàkk gàttal gi mooy faw nit ki koy jàng na amuk laab dana teew teewlu yéene dana ci jël lu lu yem lu dëppoog rek waxtoom ak jamonoom ak ko dox ak doxinam te itam mu am ca ndigal itam ndigal it baax na ci li ngay jàng ci xasida dëgg la sëñ bi maanaam sëñ wax na ne sëñ seelu daana wax ne xasida ak alxuraan moom loolu di gën a sëñ basiru xel ko mu di ko wax ne sëñ ñaar yooyu moom lu ci neex mën ngaa jàng waaye li ngay saxal nag am ci ndigal moom loolu yaakaar naa da koy gën a jagal da koy gën a barkeel ndax Sëriñ Tuubaa daana wax ne maanaam laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabuli li da koy gën a barkeel da koy gën a jagal gën a gaawal sab dox day dox sa diggante gi jeexit yu baree bari yoo xam ne manoon naa nekk ay gàllankoor ci yow te boole ci itam boo koy jàng ni ma ko waxee rek nga defe ko ci bërëb bu laab ànd ak laab jublu penku bañ koo booleeg ay wax wala xewlu wala seetaan ni yeneen i mbir te ànd ak xet gu neex te itam am na waxtu yoo xam ne itam sëñ bi ci la daa jàng lu xasida waxtu yooyu itam mënees na koy dàkk lu mel ne <clears throat> ginnaaw takkusaan ak lu mel ne ab yor-yor wax nañ daana ci jàng lu xasida ak gina wala boog timis it am na ñu ko wax lu mel ne suñu seetlu moom ginnaaw timis daana ci jàng lu xasida waxtu yooyu nga xam ne sëñ bi daana jàngalu xasida mat na kii te te di ci yéene itam ak tërbiya wu itam ndax xasida di tërbiya wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaaliin li wajhi rabbi te moytu itam taawil yi masalan bari na sama kalaas gi bayit yoo xam ne dañ koy firi te nañ koy firee léeg-léeg ñoom dañuy juum ci baat yi ñuy firee ñoo ngi doon waxtaan léegi bu ñu toogee ci biir ma kilifa yi ma leen wax ne lu mel ne sëñ bi wax ne malakani dunia wa uxra samadu maa indahu lixtaarahu muhammadu moom loolu ñu bari war dañ jàpp ne maanaam malaka ni mooy jox na ma da yaakaar liñ ko jox mooy àdduna adduniya fekk adduniya foofu day day amee maanaam fi dunia wa fi wa maanaam yàlla jox na ko ci àdduna ak ci alaxira yàlla jox na ko maa indahu loolu mi ma fool mi maa indahu lixtaarahu muhammadu la nga xam ne moom moo nekk fa suñu borom te yonente bi tànn ko loolee la ko suñu borom jox waaye du adduna si nga xam ne moom moom la ñuy xëccoo fii bayit yu mel noonu bari na lool yoo xam ni niñ koy firee maanaam maanaam maanaam mi day day day day kii kenn ko ne xëy na teewlu teewlu nga ci yenn lool it lu lu mat a moytu la maanaam prix mi sax jërut di xuus ndax daje bari wax yéen yoo xam ne sëñ bi kese moo xam lam ci jógu am na loo xam ni itam lu mat a moytu la mooy xaside yi dafa bari lu ci ne ci ay may sama classe gi nag mën ngaa jàng xaside rek jàpp na yow lañ ca wax ci may yaa ko moom mbir mi demewut noonu am na ci may yoo xam ne sëñ bi kese moo ko moom ndax boppam ca la ko jëme ci misaal moo tax mi wax ne li mu wax ne yaa waahiban wahabtali kun fa yakun loolu du ku jàng nooru rek am nga kun fa loolu sëñ bee ko moom am yoo xam ne nag masalan maanaam ci mbind mi la ne ci jëmmi xasida gi la ne ni ma ko waxee léegi xasida yi ay jëmmi leer lañ ndax wax na ne zintu qasaida taduru bayna al arsi wal kursi yi tamxul may na am na xasida yoo xam ne seen yitte mooy mooy far mboolem luy safaanu dëgg ci kaw suuf mooy seen yitte mu xasida dañoo nekk ci liggéey zintu makatiba taduumu raasida kulla muaadin wajha rabbi qaasida am na xasida yoo xam ne seen yitte mooy fuglu mbooleem ñi nga xam dañoo noonu suñu borom noonu suñu borom yi ak di leen indili jafe-jafe kon xasida yi day am yoo xam ne ci biir xasida gi la ne loolu it lu mat lu mata a bàyyi xel la maanaam am na yoo xam ne sëñ bee ko moom ci xasida gi am yoo xam ne ci biir xasida gi la ne nga xam ne boo ko yàggee jàng nag ja ak ndona la fekk si la boo ko yàggee jàng di ko te di ko sellal am na yoo xam ne nag si ci xasida gi maanaam képp ku ko jàng rek am nga ko moom masalan ila tawalifi yaqut la loolu sax mën nañ ne ci xasida la ne waaye li masalan ci mel ne jaalibatul maraaxib ci la loolu gën a bari wax na ne waxutta waxfir li man yaqra'u dha nizaam fi kulli zaman wa hab lahu jumlata ma taxtaaru lahu ladayka innaka al muxtaaru maanaam nga xam ne képp ku ko jàng rek yàlla jégal na la maanaam yooyu moom ki koy jàngal la ko sëñ bi fàggul mooy wa alihi wa sahbihi wa sahbihi waxfir li man yaqra'u dha nizaama fi kulli zaman ak li mu wax ne wa xutta ma alayhi min dunub yaa maali an bijaayihi danobi wa hab li man yaqra'uhu aw yaktubu xayral muna yaa man atatni kutubu yooyu ay mbir la yoo xam ne sëñ bi da ko fàggul kiy jàng nga xam ne foo jàng rek am nga ko moom man ngaa garanti na loolu moom am nga ko eh, waj wajlub li man yaqra'uhu xayra muraad loolu moom ci jaalubatul maraaxib la ëpp moom yoo xam sëñ bi da ko fàggul kii jàng lu mel ne bidaayatul xidma gis nañ mu wax ne waqbal bi jaahihi tihil bidaaya wa hab li man yaqra'uhul wilaaya yooyu moom ki koy jàng waaye nag foofu yaqra'u fi'lu mudaari la fi'lu mudaari mooy ku sax ci di ko jàng ku sax ci di ko jàng yal na ko yàlla defal lool nga xam ne loolu moom ginnaaw sëñ bi ñaan na ko amul si kenn yow boo jàngee rek te sax ca di ko jàng loolu moom di nga ko am ca nooru daareen am na ci am na yeneen xasida yoo xam ne loolu da ko kon loolu lu mat a bàyyi xel la du loo ci gis rek jàppal nga jàpp yaa ko moom wala am nga ko wala demir ji maag sëñ bee ko bokk déet demul noonu am na ci yoo xam ne sëñ bi kese ko moom ndax moom kese moo ko moo ko moo ko sañ a wax ni ma ko waxee ñu wax yoo xam ni sëñ Tuubaa kese kese kese moo ko moom te kenn fëkk ko ca te moom rek it moo ko sañ a wax waaw loolu eh, wajaal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujuura rusuli moom du maanaam ñëpp ko ca fekk wax dëgg yàlla kon loolu lu ci mat a bàyyi xel la loolu mooy gàttal gi sëñ bi itam Cheikh Mouhamadou Mountakha bokk na ci poñ yi nga xam ne bu fekkee ne waxtu wi kii na ñu ñu ñu juñu ko waaye bokk na ci poñ yi mu wax itam mooy xam-xam wax na ne wax na ne xaside yi dafa aaje jàng xam-xam ba géeju ca ñëw nag dugg ci xaside yi baat bu am solo la la sëñ bi wax foofu maanaam xaside yi mënees na cee jariñu ci sóobu ci nii rek waaye boo ci àndee xam-xam sab dox day gën a leer day gën a gaaw sag jariñu itam day gën a gaaw jeexit yi itam ci day gën a gaawee loolu amul sikk moom ndax ku ne xam na ne xam-xam ni ma ko waxee ak leer la goo xam ni më mënta ñàkk mooy li lay niital yoon wi waaw Sëñ gis nañ wax na ne jihaad ji muy jihaad di xam-xam la inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa yaqulu ahmadu lu mu ko waxee yadcu lmala bil ilmi wal ibada yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bil ilmi wal ibada kon doxub sëriñ bi dox yi nu xam-xam la mun ci ñàgg si maanaam xam-xam mooy ngànnaay li Sëriñ Tuubaa doon xeexee nga xam ne képp koo xam ne yaa koy fullaal yaa ngi gën a sàmm ngànnayal Sëriñ Tuubaa loole dama am waajur bu baax boo xam ne day wax ne eh, ku ne sëriñ bi ngànnaay la muy xeexee koo koy fal rek yaa ngi mel ne kuy sot sëriñ bi yow moo tax te xam-xam fi ne buñ seetloo yowmal xiyaam la suñu borom di taw feexal gaaña du ceegee ne ay lekk ak i naan rek xam-xam moo ci ëpp solo xam maanaam boo gisee Sëriñ Tuubaa maanaam suñu borom ñi muy ubbi wala ñu al ilmu ladunni ñam cee ubbi xam-xam la leen di jox su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam rek la ko suñu borom wax ne ko ñaan ma ko waxul rabbi zidni ilman abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman kon xam-xam ñàkk gis nañ Sëñ mi nga xam ne suñu boroom da ko jox léppam bokk na ci may yi muy wax yi jëpp may xam-xam la wa li uluma man taqaddamu wa man taaxaru bikun yaa akramu maanaam suñu borom jox na ko xam-xam yi mbooleem ña jiitu woon ak xam-xam yi mbooleem mu dajaleel ko ko ndax xam-xam mooy mooy mooy mbir mi yonente bi sallallahu alayhi wa dana wax ne moom ñoom bay wu fi dara lu ñuy donn ci mbiri àdduna ma taraknaahu sadaqa waaye al ulama warasatul ambiya maanaam borom xam-xam yi ñooy donn yonente yi waaye lañ leen di donne xam-xam lay doon kon xam-xam boobu mën la ñàkk te itam Cheikh Mouhamadou Mountakha da ci wax lu am solo mooy lii fi sëriñ bi bàyyi ngir nu yóbbu ko e, fam war a dem fépp ngir àdduna sépp mën cee jariñu faw nu fu laal xam-xam fi ne jataay yi ngeen def rek bu ci xam-xam génnoon du mën a sotti fi ne kenn ku ne mën naa beru ci noonu di jàng di jàng see xasida waaye lii ngeen def nga xam ne mbooloo mu bari tey incha allah dinañ ci jariñu loolu yi xam-xam génnu ci moo tax xam-xam mënta ñàkk xam-xam nag du ŋàbb sab téere rek di dem di tëralu yoon yi ñuy jànge xam-xam yu bare bari la kon loolu it lu am solo la loo xam ne sëriñ bi taxaw na ci te muy lu mënta ñàkk itam ndax Sëriñ Tuubaa ba mu jógee rek dana day yeesal diine diinun si waa islaamihi laa yuhamadu inda lillahi wa bihi nu jaddidu waaye na ko yeesale mooy daa taxawal daaree xam-xam sàkk ay mag yoo xam ni dañ doon jàngale xam-xam ñooña mën nañ caa lim ñu bare bare bare bari borom Daarul Muxti ca la bokk sëriñ Mamour Jaara ca la bokk Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye jëmmooy ca la bokk sëñ Daam Abdourahman Lo ca la bokk sëñ eh, sëñ Mouhamadou Dem ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ca wet ga itam mu wut daara yi tërbiye joo xam ne ku génn ci daara xam-xam je mu jaar la ci tërbiye ndax dana wax ne njàngum kese itam eh, maanaam bu ëntaku tërbiya loolu yaa ngi mel ne ku jël fi ku jël ngànnaay rek jox jox jëmm ja mën na caa jëfandiku ci anam gu kii waaye mën na koo jëfandiku ci geneen anam moo tax tërbiye gi itam mënta ñàkk suñ tubaa seetlu nañ bi fi Mamour Anta Sali jógee te booba waa Kajoor gépp daje kilifa ya daje bëggoon ko booleeg buurub àdduna ba lam leen wax asiri gam leen tontu mooy xaalu li kan li abwaabi salaatini taxus jawaïse tuxni kullama xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi waaye da caa teg walastu raadiya gayra al ilmi wa diini man lu dul xam-xam du diine loolay soxlawu ma ko kon te xam-xam masalan njariñ li weesu na foofu fi ne tey xasida yii nuy jàng nii dinaay wax ne ku ne seetlu na ne am na yu ciy tàbbi fi ne xasida léeg ñu génne ci lu ci bokk léeg-léeg itam ñu dugal ci lu ci bokkut tubaab yi am na yoo xam dañ ko cee tàbbal te loolu xam-xam kese moo ko moo ko mën a moo ko mën a euh, moo moo ko fi mën a jëlee waaw moo tax xam-xam bi mun na ñàkk maanaam sàmm nolol sëriñ bi xam-xam moo moo koy may gis nañ masalan lu mel ne mu layyunu sudóor ba mu njëkk a bind sëñ Basiru dafa wax ne laibat biha aydi talaamida maanaam taalibe yi dañ cee dugal seen loxo xam nga bu ñu daa bind bu njëkk léeg-léeg ñu bokk fii dara léeg-léeg ñu kii yooyu nag daa dem ba tàbbi ci biir mbind ma mujj desul xamante li sëñ bi bind ak lim bindut moo tax sëñ bi ba mu ñëwee ba mu jógee ci géej gi da ko folli bindaat bindaat ko muy munawiru sudóor fi ne bu ñu gisee munawiru sudóor am nay bunt yoo xam ni sëñ bi indiwatu ko te la sëñ laa Basiir wax laibat biha aydi talamida loolu nag xam-xam rek moo ko mën a sàmm fi ne tey masala da gis maanaam xasiida yi mool boo xam ne dañuy gis ne lii moom ci naxwu al naxwu al arabi ak qawaayidu luga al arabia gis na lii moom njuumte la te Sëñ Tuubaa wax na ne moom moom du juum moom yàlla ci moom moo ko musal ci njuumte ak li koy nuru yaqi xilaamiya al xata wa sahwa baaqin waqaaniya al ida wal lahwa wasaanani an xata in walaahi yàlla ko musal ci njuumte léegi te léeg nga gis yoo xam ne da xam ne lii njuumte la kon njuumte loolee la ko ci dugal ñàkk xam la kese fi mu ne tey dangay gis lu mel ne kalaamun qadimun laa yumallu samaauhu tanazaha an qawlin wa filin wa niyati xasida googu mi ngi ci mujarabaatu dayrabil kabir te mujarabaat dayrabil kabir ba maanaam moo jiitu sëñ bi ci ay at ay ay at ay téeméeri téeméeri at te fi ne ñu bari dañ koy dañ koy bind di wax ne maanaam sëñ bee bind di ko moomale te loolu bari na loolu fi ne allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu du kanafin wa waaqi ñii dañ naan la sëñ bee ko def ñii la sëñ sëñ sëñ sëñ te fekk boo demee ci al ansaamul mubaaraka bu Cheikh Mouhamad Ilmaami ma nga ma nga ca te an Cheikh Ilmaami jamono yi muy génn àdduna boobu sëñ baa ngi poroxaan mooy jamono yi sëñ bi nekk boobu lay jàng xam-xam kon xasida googu dangay jàpp ne jiitu na ko te Cheikh Mouhamad Ilmaami diiwaanam bi boo ca demee maanaam allahu hayun samadun ba mu ca wax moog bii benn lañ fenn rek lañ wute mooy mustasfiina bil xiyaasi ahmada moom la wax fee te fii mustamsikiina moo nekk ci bii sëñ bi nag doon ko fokkoon doon ko fonkoon Cheikh Mouhamadou Ilmaami moomu ku fonk la waaw ak ak yem masalan tey am na xasida goo xam ne xasida suuratu sarxi nga xam ne mboolem ñi koy yër day jàpp ne lii moom sëñ bi defu ko ndax la ca ci ay ay njuumte yoo xam ne du njuumte yi mbind nii moom njuumte yi ni wax ji nga xam ne mel na ne sëñ bi def na xasida suuratu sarxi waaye bii bii ñu móol nii boo ko ak boobee tey masalan am na xasida yoo xam ne dañuy xam ñeneen ñi ko def lu mel ne sëñ Moussa loolu loolu mu wax kiin diirun alamina wax ne am na jamono mu siiw ñu ñu am ñu koy am na jamono jii ci gannaaw maa ngi koy wax mbokk yu ma masa moo moo xam daa ñëw di ma jàngal xasida yàlla dogal benn bis mu ñëw tàmbali di jàng xasida goo xam ne mi muy kafaaka rabbuka kam yëg fii ka waaki fatan kif kaaf waxa kaka min kaana min kilki <laughs> maanaam bayit yooyu ñetti bayit la yoo xam ne yoo xam ñeen fukki kaaf ma nga ci am na ñu ne Seydina Aliyu moo ko defoon am na ñu ne benn maanaam waaye lu mën a xew maanaam wax jooju sëñ bi da ko waxut maanaam loolu waxin yooyu ndax du waxi sëñ bi tak takirru karran ka karral karri fii kabadin maanaam waxin wi fi ne da nga gis ñu ne la maanaam jinne yi ñoo ko doon waxi sëñ bi ñoom la ko sëñ bi defal te fekk maanaam loolu du waxi sëñ moom aslan moom loolu dañuy wax ne dañuy wax ne cosaan la am na ñu wax ne la ci gën a wér ci li ma jàpp mooy dañuy wax ne benn bu àdduna moo ma sa tëj benn waay ne ko nag boo ma defalee ñetti bayit yoo xam ne ñeent fukki kaaf dañ ci ne ma génne la waa ji fexe ba def ko waaye bayit bi sax am na jafe-jafe kafaaka rabbuka kam yakfika waakifatan kif kaafuha kaka min kaana min lakaki takirru karran waaye ñii sax niñ koy jàng ñeneen la bi ne ñeneen lañ ko wa ñeneen koy waxee lu bokk ak baat yi ma wax ni kon masalan xasir ak busra tubaab yi dugal nañ fi ne tey ci diiwaan yi am na ci diiwaan boo xam ne gis busra lana qad xawal islaamu maa qasada bi ismati min dawi sayin loolu mi ngi ci diiwaan yi te tubaab boobu Paul Marty moo maanaam xasida googu xasida Paul Marty la sëñ bi defu ko ndax sëñ ma xasida gi dañ ci tàgg tubaab yi te sëñ bi moom mësul la tàgg tubaab moom moom dana wax ne daa thanaun lam yakun madhan nabi is lam yakun li gayrihi min manqabi dana wax ne maanaam wépp tagg wuñ tagg ku may rasulullah sallallahu alayhi wasallam tagg woowee sànku na ndax moom kese moo yeewu tagg am na xasida gu gën a doy waar goo xam ne moom Paul indi na ko te mooy li wax faaqat madame Ponti daatul xusni war rasami man kaana fii Sénégal min kulli ma madami nga xam ne moom soxna si madame Ponti maanaam soxna euh, William Ponti moom lañ ci tagg te loolu gis nañ ay bindkat ci réew mi ñoo xam ni dañuy dogu wax ne sëñ bee ko bind ñoom xam nañ ko maanaam mu lii moom ku jël rek te xam dara sëñ Tuubaa da xam ne lii maanaam maanaam maanaam sëñ Tuubaa mësta maslaa ko tubaab bu doon maslaa ko tubaab duñ ko téye diirub dundam gépp moom gis nañ fanweeri at ak ñaar yi mujj ci dundam yëpp dañ ko ko téye juróom-ñaari at ca tukki ba ñe bi mu ñeenti weer juróom-benn weer la def ci réew mi ñu yóbbu ko gànnaar ñeenti at ginnaaw ba ñu yóbbu ko fële jolof ginnaaw ba ñu téye ko fii ci njëreem tuubaa gi mayu koon mu ñëw fi te sëñ Tuubaa wax ne wala udaahinu dawi tanasuri insha aman yamundu bit tabasuri maanaam musta maslaak ñoom li yashhad bi an nii la a mushrikan xalilan habiban lilladi karamal jamba kon maanaam loolu nag li fi ne lii mi ngi xew man na mas a toog ci bërëb bu ñu jàng xasida am koo xam ne mi ngi yor diwaan di jàng busra bii ni am ci positif loolu te wóor ma ne busra bii moom du waxi sëñ moom <laughs> lii moom moom moom tubaab lañ ciy tagg ci adam goo boo ko xam da xam ne lii du waxi sëñ moom kon loolu moo tax xam-xam bii sëñ Muntaxa wax nii daa mënta ñàkk daa mënta ñàkk moom fi ne léeg-léeg ma ne tawbat na soo bii nga xam ne moo tàmbalee xamdan li rabbi gaafiri dambi lana qaabili taw bi naa lu fihi bi naa xasida ko fi ne sëñ bee ko def sëñ bee ko def daa bokk ci yu yàgg yaa yàgg rek waaye sëñ bee ko def am naa ci tegtal yu bari yu ma ci wax man Cheikh Abdul Xudoos moo ko digaloon ne boole ci ma digaloon ne naa ko jàng Cheikh Mouhamad Wuld Ahmadul Hasan am na téere bu mu def ci téere bi sëñ bi la bàyyam moom la sëñ bi njëkk a jox Wadul Manqus am na téere bu mu def ci wàllu mag euh, saabuunul magfira la ko tudde saabuunu duno bil muattara fi ahadisi mukaffirati ma taqaddama min adambi wa ma taaxar waaye ba muy indi li sëñ bi taalif ci wàllu istixfar xasida googu la ci indi ci nahjul xawim nag bu see bu bu sëñ bu sëñ Allaaji Mbàkke mu baax mii moo wax ne wax nañ ne sëñ sëñ Moustapha xasida wax na ne sëñ bi defu ko loolu na xëy na ka nett li sëñ Allaaji sëñ Allaaji bu man laaj naa ko mu ne ma déet lool kay damaa nett li rek lu wax waaye moom jàpp na ne sëñ bee ko def sëñ xalil magam itam nee na ma sëñ Yuusufa xasiida nee na ko sëñ bee ko def waaye daa bokk ci yàgg ya ak yu bare bare bare waaye gis nga fi ne ah, demoon na jamono yoo xam ne moolatuñ ko gis ci ginnaaw mel na ñu ngi ko tàmbalaat mool waaye demoon na jamono yoo xam ne moolu moolatuñ ko kon xam-xam bii sëñ taxa wax ni mun la ñàkk ci ngir mën a liggéeyal sëriñ bi ci mbindam mi eh, mel na ne maa ngi gën a guddal waaye am na yeneen poñ yu sëñ bi wax mel ne wax na ne nañ roy ci ahlu badrinil kiram ahlu badrin nañu fonke woon seenub seenub seenub sëriñ te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ku ne xam na ne eh, yow mu badrin sëñ bi wax na ci ñaari yoon jox na ci misaal yow mu badrin keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca guddi ga bañ ne suba la la xare ba dafa diyaaleeg boromam wax suñu borom ne ko mbooloo mii de bu ñu faatoo lislaam fay ndax boobu ñetti téeméer kese lañ te junni maanaam yéefar yi matoon nañ junneeg nangam booba ñoom waaju ñu ndax ba ñuy génn màkk xeex taxu leen a jóg dañ doon génn di dab am njëg far nag njëgg ma jaare yeneen yoon dem màkk woo leen waa màkk ñoom waaj ñoom indi seeni seeni fas ak seeni lépp moo tax ñoom waaju ñu woon waaye gis nañ positif ba positif bañ ca wane ak doggu gañ wane ci yonente bi sallallahu alayhi wa moom ñu ne ko maanaam boo loo tey jii moom waxuma la xeex bii waaye waaye géej ga sax boo nu boo nu woon nañ ko jéggi ji nu ànd ca yow loolu foo nu yóbbu rek nu ànd ca wax nañ ko bàyyee boppam jaayanteeg moom ci jekk ci faatu ak dogu ci dee ngir yàlla loolee dogu googee la sëñ bi wax ne nan ko def eh, nañ nañ leen ci roy tudd na ko ay yoon am na benn poñ bu am solo itam boo xam ne tudd na ko te mooy dëddu àdduna wax na ne àdduna amul solo dafa njëkk wax sax moom Cheikh Mouhamadou Mountakha ne am na ñoo xam ne seen yitte mooy seen i bànneex rek nuñ ko amee sol yeeg kër yeeg oto yeeg ak ak kii compte banque yi noonu la ko waxee waaye nee na yooyu amul solo nga xam ne dañoo digal ci nu bañ a roy ci ñi nga xam ne loolu mooy seen yitte adduna wut nekk yitte murit bi gën a kawe waaw wax na sax ne ñi nga xam ne maanaam adduna ñi ci ne moo xam buur beeg président beeg ñoo ñëpp kenn koo xam ne li nga bëgg lépp ci àdduna di nga ko am amul loolu nag gis naa ne lu lu lu mat a bàyyi xel la mooy àdduna maanaam dafa bokk ci murit woyofal àdduna ak dëddu àdduna dëddu àdduna na xol a koy def maanaam loxo bi àdduna ma na ceene waaye bu mu dugg ci xol bi mukk loolu la Sëñ Tuubaa wax ba mu koy jàngale ca tarkuka qasdaha bi qalbin li samat maanaam sa xol bu bu ci àdduna dugg xol bi moom na ko yàlla dëkke ak yonente bi sallallahu alayhi ak sëriñ bu mag bi waaye bu ci àdduna dugg mukk waaye nag àdduna mën nga koo jëfandikoo dee si jëflanteeg moom moom àdduna waaye desu ko desu ko dugal ci xol Sëñ Tuubaa wax na misaal moo xam ni dinaa koy wax lu baree bari lu am solo la Ahmadul Hasan moo ko indi ci Fathu Samil Alim wax ne sëñ bi daa wax masa wax ne àdduna dama doon dàq ma di ko daw di ko daw di ko daw ba mujj nee na ñu ne ma taxawal nee na bi ma taxawee adduna ñëw wër ma ci wet yëpp ne ku bëgg a agsi fi man dangay ngay jéggi adduna moomu nag doog a agsi fi man lu mat a bàyyi xel la Sëñ Tuubaa adduna da ko wër moom man adduna ci am adduna ci Sëñ Tuubaa gën a gaawee waaye adduna si bokkut ak sëriñ bi da ngay jéggi adduna doog a moom kon loolu lu mat a bàyyi xel la wax na ca lii Sëñ Muntaxa wax mooy li sëñ bi wax ca Masaalikul Jinaan rek li wax ne أما دواء حب ذي الدنيا التي حقيرة جدا لدى ذي الملة ففكرة في خسة القدر وفي فنائها أين جميع السلف وأينما من العروض جمعوا والعين والنعم baadu jumau loolu Sëñ Tuubaa wax ne boo bëggee àdduna woyof ci yow da ngay xalaat woyofuk àdduna ak ñàkk soroom wax nag ne mbooleem mag ña ñëpp dem nañ te boo amoon solo ñu toog nit ñu baax ñëpp fi ne gis nga dem nañ mboolem li nga xam ne moom lañ dajale woon itam ci alal ak borom alal yi ak buur yeeg ñëpp gis nga dañ ko fi bàyyi dem loolu sëñ Tuubaa baadu jumaa ñoom ñëpp dem nañ moom la sëñ Bay Jaxate wax ne dee fab na say maam fab maami say maam ba ëmmatoo maam dana la fab dee kenn dul ba maanaam maanaam adduna ci moom dafay bayiwul kenn moom moo tax donte dafay ba yónneen ba lay ba ngeen ji aw nit te daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teer teeral gaalam ci sa kon loolu it lu mat a bàyyi xel la sëñ bi itam wax na ci ne adduna ñaara fi dëgg ak dëgg dëgg ak neen eh, ñaax na itam ci nu sax ci dëgg te moytu sawaan ba wax na itam loo xam ni xam naa ci laay jeexale mooy lim wax ne yàlla des koy wut waaye adduna sii nag moom li li nga xam ne moom nga ci war am lépp suñu borom moom fàggul na la ko ba noppi garanti na la ko loolu am solo la mooy wa min dabbatin fil ardi illa ala rizquha mooy yàlla garanti na la yow faw nga dund moom maa li nga war a dunde yow kay yaay bëgg loo ci yokk waaye li nga war a dunde moom lii sa wërsëg moom faw nga jot ci léegi nag daa am loo xam nag moom danga ko war a wuti moom te mooy jëmmi suñu borom tabaaraka taala moom des koy wut moom loolu la wax ba bay jaax daa ne gis naa la ngay dàq ab yaafus te séenu la ko <laughs> moo jaa ngay jote ab njaxlaf te dëqu la ko kon murid yàlla yombul wala ni mu ko waxee sëñ seeb laat nekkee moom du ma ñëwee wax bu it sëñ bay jaaxate waaye wax ne xarit yàlla yombul wala ni mu ko waxee xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am kon jëmmi yàlla des koy wut sëñ siñ bi nag wax na lu am solo mooy sëñ Tuubaa itam boo ko amee rek am yàlla ndax sëñ Tuubaa du teqalikoo ak suñu borom ci lenn boo ko amee am nga suñu borom moo tax mu ne nañ def suñu yitte mooy am sëriñ bi te sëñ Tuubaa nag dafa am yu muy àndal maanaam xol am na yu mu cee bokkal ne waaye xol am na xol yoo xam ne du ci tabbi mukk ku ne xam ne loolu kon loolu yi mooy gàttalu yi nga xam ne dégg nañ ko ci waxi Cheikh Mouhamadou Mountakha ju réy jooji te am solo te ay mbir nekk ci ay koom nekk ci nga xam ne murid yëpp war nañ ko diglu ñu ñaan yàlla dafa nu dégg ak topp loolu mooy kem kàttanu sunu dégg am na yeneen i maxna yu bare bari yoo xam ne xëy na sunu dégg agu ca ñoo ñaan yàlla taw feexal eh, bañ mën a àgg ca bëggam nga ak ni mu ko bëggee ak yéeneem ju kawe ji nga xam ne buy wax da gis ne yéene lay waxee yàlla na yàlla def yéeneem yooyu yëpp sotti daraja Sëriñ Tuubaa ten ànd ak moom lépp wassalaamu aleykum Uh, jërëjëf sëriñ Ahmadou mbakke ci kàddu yi uh, lii de waa kuréelu itali yàgg nañ ko bëgg ndax ñaari at yëpp ñu ngi programme nga ñëw ci bis ba ñuy def ca itali waaye di sëñ ba Jaxate di wax ni yàlla ngi yor lépp lu jaamam di bëgg ko ut moo dàq fab loolu daal koy jox fa saa sama yor lootul ci lëf mbaaye mbooleem lépp luy xala am sàkkal na koy saa ki waxtoo kuy sabab ji ko jur kon tey ji la sunu borom dogaloon ni tey ngay toog ci jataay bii wax ci jëf wax ci xam-xam muy lu nu mësoon a bëgg te say tey ji sunu borom dogal ñu ngi lay sant bu baax a baax ci xam-xam bi di fas yéene jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Mbacké mi nga xam ni sunu borom dogal na mu jànge xam-xam fii fi dëkk bi ak Mauritanie ba mu fa jógee li ñuy wax étude universitaire ma ngi ko defee fële ca Tunisie def immigration boole liggéey ak jaamu yàlla ànd ñun ci liggéey bi ñaqam fekkewu ko lenn fekkewu ko teyle na aw santam teyle na deretam ngir jëmmi liggéey bi ñu fas yéene jox lii di kàddu gi waaw kon sëñ bi eh, eh, nee na ñu may tuuti sëñ Abdoulaye Touré ay kàddu yu tuuti rek xam naa ni moom loolu ci mën a ñàkk ginnaaw moo ko sàkku rek ñu defal ko ko xam naa ñu njëkkante ak temps bi rek ndax la waaye eh, ñuy profité rek di wax ni sëñ Ahmadou Mbacke mi toogoon sànq jàngewul fenn fu dul diggante tuuba ak Daarul yi dem na nag fii di Mauritanie ngir gëstu waaye foofa day barab bu barkeel di barab bu xam-xam seetlu nañu saytu nañu Mauritanie amul fukk xam-xam bu wér bu leer ci diine ak ci tasawuf ba tax na sunu jur yi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan fa dem barke ba fa nekkoon ak bañ fa bàyyi moo taxoon sunu kilifa yi demoon fa sàkku ci xam-xam dolli ko ci xam-xam kon Cheikh Bala Touré bala ñoo jox Serigne Mouhamadou Mbacké rek ñu jox la kàddu gi nga am loolu baaxee ci bis bi nga xam ne day sunu bis di lislaam waaye di bisub yoon wépp bisimilah. asalaamaaleykum nu dolli tuuti ab taaliix ci ci sëriñ bi ji mu doon wax ci wàllu xam-xam xam-xam day lu am njariñ ndax sëriñ bi néew na lu gis mu bind ci wolof wala ci weneen làkk arab arab rek la bind kon faaw ñu jàng ngir xam ca dara mu ne su la xam lépp waaye nga xam ca dara ci biir njàng mi am na loo xam ne xam moo ko mën a teqalee am na ci baat yoo xam ne ku ko xamut soo ko waxee ni mu doone na xéwal noonu lay doone ak njaaxum boo déggee sëriñ bi di wax ni danaa koy faral di wax lu bari anne ufawidu ahwaali liman ajasu xan xaali anfusihim xajsal masakini foofu sëriñ bi day wax ni na